début de carrière de Pa bi juddoo Sénégal Dakar plus précisément yaro fii jàngee fii fii la am bac def benn année fac université Cheikh Anta Diop yàggaliwul après dem Kaaw commencé foofu tamit mais yàggaliwul après nekk ci rab bi depuis les années 97 98 début bi mu nekkoon passion. après mu def ko métier en 2007 mu formalisé mu créé structure. ko sax Oscar des vacances 98 su ma waaw ay 97 98 ma bokk ci benn concours droit de l'homme donc man dama jëloon droit de l'homme yi bind traduire ko en wolof bind texte bi en wolof et j'avais gagné le concours Oscar des vacances le concours de rap. après trophée bi Abdou Diouf moo ñu ko doon jox à l'époque ñu dem nag Abdou Diouf moo ñu ci la ma paa bi sax commencé ne ah kii rab bu muy def quand même il prend les droits de l'homme il les fait en wolof il gagne un prix il est reçu par le président ah le rap là quand même ça commence à devenir quelque chose xam nga ma dem maa ngi rappelé période boobu mooy ancien terminus bi nekk Dantec boo dépassé Dantec clinique Cap Manuel foofu la ñu organisé woon ak ñoom Aziz Samba donc euh, ñu may décerner prix bi maa ngi fàttali fàttaliku bu may Abdou Diouf di jox maa ngi siggi xool ko benn bët bi mu ngi mel ni bëtu waaye gaynde yooyu quoi ma nekk mm. ma dem sama pape ma ne ko kii oh, c'est pas un être président là son œil là sa famille. Mm-hmm. ngay ñëw di créer entreprise. waaye gars naan la ay jëndal suuf investiral ci ay immeuble xam nga location yi ça paye ñi naan la ay waaye dellu dellul kaaw a chaque fois man mosuma dugg ci benn projet te découragé woon ma même début bi ñuy rab gars yi dañ nga doon naan waaye doo mës a mel ni ay daara ji waaye ay PBS demal tëddi nelaw loo tax bi may def grand théâtre gis PBS ñoo yéeg ci scène bi sama xel ci loolu la dem ko ma ne xoolal tey maa ñëw ba teg grand théâtre ba tey PBS ñëw di yéeg ak man xam nga nongo tamit mu ngi doon ñëw mi nongo teelu ma ko gis ma ne oh nongo moom mu yéegoon tamit seen dem ba di jokkalante ak ñoom nongo Fada Freddy Alaaji Maan Dégét yi Awad yi alors que ñii c'était xam nga ay idole la ñu woon quoi te ay idole ba tey sax quoi mais à l'époque c'était très fort tu vois mais li métti woon mooy à chaque fois comme ni nga ko waxee ah au début waaye doo mel ni ñii waaye. jëkk teg waaw pour wax tamit événement yi ma marqué Jules Junior bu may jëkk teg sama sama sound Walfadjri à l'époque Black Label très écouté pour nga jaax fa c'était tout un problème mais mu ngi ko teg maa ngi tey téye Walkman di déglu rajo mu teg ko maa ngi ci car bi dafa teg son bi rek waaye un nouveau jeune kii moom son dafa doy waar dama ko déglu mais xam nga rek teg bis bik leen rek ma yuuxu wooy <laughs> ci biir carabit bi gars yi yëpp dugg ne xool ma wooy ma dugg koñ ba mu dugg koñ ba mu nekk jubilé booy sama sound rajo suñu booy gars yi di jubilé mu mel ni waaye coupe du monde da nga gagné quoi donc boobu tamit bokkoon na ci li ma rien n'est acquis rien n'est facile tout est combat saa waaye tey ngeen ñuy gis ñuy toog ñuy interviewé nii ci plateau yi tey ngay gis peut-être ñuy dawal oto tey ngay gis ci réseaux sociaux yi ñuy voyager mais li may raconté nii yëpp ci sama parcours hmm, en 98 99 quand on a enregistré chez Laye Diagne que je big up by the way au passage il était à Guédiawaye ñu doon jógee Guédiawaye di dox ba rond-point Liberté 6 bi foofu imaginel Guédiawaye ba rond-point Liberté 6 lañ doon dox lekk ay ci yoon gi ñoom Gaston ñoom ba Jolof ñoom Ama Diop tu vois bu ñëwee ba foofu lang ci rapide yi parce que foofu rapid yi gars yi xam xawoon nañu xàmmee lang rapide yi pour mën a wàcc Medina dañ doon yor ñaari peeru dàll benn bi bët benn jean ñaari t-shirt benn mbaxane donc ça n'a pas été